nuun wal qalam wa maa yasturuun mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu baax a baax di leen siyaar di am mbégte di leen dalal fii ci Jaxaw Siin fas yéene seq waxtaan suñu kilifa suñu wayjur inspecteur monsieur Galadio ture ci taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci bind livre bu am am solo muy loo xamante ni l'islam da koo santaane ndax bu ñu xoolee li njëkk a wàcc alxuraan mooy iqra mu tegaat ca nuun wal qalam wa ma yasturuun kon subhaanahu wa taala moo santaane ñu jàng waaye moo santaane nit lépp lu ñu jàng ñu yaxal ko bind ko kon tey loolu la inspecteur bi dëggal ci livre bu am solo boo xamante ni tey incha allah dinañ fa fas yéene waxtaan ak yéen taxaw càmbar ko mu doon njëriñ pour Sénégal waaye doon njëriñ pour àdduna bala ma sori dama koy bàyyi mu nuyoo inspecteur maa ngi lay ziar. delloo naa la ziar Seck di la nuyu ak say technicien ak say téléspectateur maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam. Euh, jërëjëf inspecteur muy lu am solo nga def ko muy taxaw bind benn livre tudde ko euh, le procès de la dictée euh, lan la tax nga indi xalaatu bind livre bi inspiration fu mu jógee. bon man disons jàngalekat laa je suis un produit de l'école élémentaire donc. lépp loo xam ne xeetu xam-xam la bu ñu war a def ci doomu aadama nañ koy jàngale dama ko war a xam waxuma ne xam naa ko de mais dama ne dama ko war a xam ma seetlu nag ci biir ne yooyu yëpp njàng njàngale mi lépp bu ci nekk xañ na sax jaar na yoon mais dictée bi moom xam naa ne jaarul yoon nañ koy jàngalee jaarul yoon résultat yi baaxul tey jii ñu dem a dem a dem ba ñu ne daal waaw teñ ko bàyyi dictée teñ ko bàyyi parce que amul njëriñ du toute façon xale yi zéro la ñuy am mu yàq seen mooy et cetera nañ ko bàyyi man nag loolu sama xel daf ci àndul ma dara dara dara ñu bàyyi dictée waaye man na sama xalaat du dara naa laaj ñi ma bokkal métier bi inspecteurs yi directeur yi enseignants yi ah, ñëpp ak parents d'élèves yi sax ku nekk wax ma xalaatam ci dictée ndax ñu bàyyi ko ou bien ñu delloo ko si ko ci système bi loolu mooy problèmatiku livre bi loolu la ndax ñu dugal ko am ñu bàyyi ko waaw donc kon su may dégg ci wàllu histoire dafa mel ni euh, dictée am na benn cër boo xam ne doon na ko joué ci éducation nationale mu dem ba ci yàgg ñu daal di koy supprimer tey boo ñu doon indil ci njëriñu dictée parce que man euh, li ma gën a jaaxal mooy euh, problème lecture dafay nekk yeneen problème nekk fi mais nga choisir dictée est-ce que leen ko bàyyi moo tax wala est-ce nga gis ni dictée am na beneen njëriñ bu gën a xoot que leen ko fooge. dictée mooy njeexat njeexal njeexital lépp booy def lecture booy def grammaire booy def conjugaison booy def même production d'écrit ci dictée rek ngay mujj parce que nit ki liñ ko binduloo li ñuy wax te mu war koo bind su ko mënul bind rek njàngam màccagul wax ji yëpp loolu la seetlu ne xale yi dañuy def trop de faute trop trop trop de faute parce que liñ leen koy jàngale xaj na du noonu effort bi ñu waroon a def pour comprendre tari appliquer effort boobu nangootuñ koo def ah système bi aussi seet ne comme mbir mi ñu ngi leen koy forcer di leen ko defloo te duñ ci am ndam buñ yeboo bàyyi ko defi leneen bàyyi defi leneen bi nag foofu aussi problème la parce que soo bàyyee defi leneen ça devrait supposer que leneen la ngay def nga am ci ay poñ mais bu fekkee bàyyi nga lii parce que dafa jafe di def leneen loo xam ne tu juges que ce n'est pas difficile mais amoo ci ay poñ ah wax dëgg yàlla loolu ba tey c'est pas un loolu la daal. c'est pas un beau choix euh, mais bala ma ñëw ci livre bi euh, yaakaar naa dund nga système yu bari ci ay jamono yu bari euh, nga am benn expérience boo am tey soo ma doon taxawal ci expérience bi nga xam ne moom nga am ci dictée xëy na ci système yi nga xam ne moom moo fi jaar yëpp lan nga ci mën a tënkal. waaw xam nga loolu moom histoire bu gudd lay doon parce que ñetti approche pédagogique moo fi amagum première approche mooy approche par les contenus école ba mu sosoo ba dans les années 1970 1980 ba mu sosoo laa wax ay 1800 ba année 1970 80 li ñu def approche par les contenus c'est-à-dire que matière bi rek lañ doon jiital ci li ñuy jàngalee ñu dema dema dem ba ci ak ñu ne attends matière bi jiital bi baax na de waaye teñ ko def par objectif cest à booy jàngalee matière bi lu tax nga koy jàngalee ban objectif ngay viser ñu nekk ci loolu dema dema dem ba ci ak ñu ne waaw léegi nag dañu wax objectif objectif objectif aujourd'hui on a on en est arrivé à un point tel que continue bi réer na objectif rek la ñu wax contenu bi réer na xamatuñ contenu lan la ñu ne kon nag nañ def approche par les compétences compétence dina boole objectif ak continue ci loolu lañ nekk nag temps yi waaye booy seetlu dëgg dëgg dëgg approche par les contenus baaxoon na mais genre encyclopédisme la woon ngay jàng lu bëree bëree bëri bëri tere lu bëree bëree bëri ce qui fait tey jii booy seetlu ñi nekk ci école ba ñi jàng ci école booba yëpp lu bëri mën nañ la ko tere lu bëri xam nañ ko n'est-ce pas mais eh, xamuñ woon lu muy jëriñ ñi daal di dem deuxième génération bi ñu jàng par les objectifs xam na ne lii di objectif am nangam la l'objectif am nangam waaye contenu bi lée réer na leen léegi rek ñu jéem a boole yëpp objectif ak contenu muy approche par les compétences waaw approche par les compétences am na force beaucoup de force beaucoup beaucoup de force mais aussi il me semble que am na ay insuffisance te insuffisance yooyu bokk na ci li mënul régler problème mu dictée en tout cas réflexion am fi mu jaar bi léegi àggagul ci joxe solution pour la dictée loolu aussi li ma ci ci ci ci manquement yi la bokk ci jafe-jafe la bokk xam naa mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel surtout kilifa yi nga xam ne ñoo jiite éducation ñoo ngi sàkk ci ñoom ñu jéem a jege ñi nga xamante ni suñu borom may na leen xam may leen xeltu bu baax a baax a baax te yàgg ci système bi ñu jëm li na dajale su ko defee li nga xamante ni mooy tey moom lañ soxla ngir am population bu baax loolu dina mën a sotti euh, kon inspecteur léegi mën nañu ñëw bu baax a baax xuus ci téere bi tey bu ñu doon jëmal téere bi nga bëgg ñu ko présenté euh, ci euh, page yi ak maanaam ni nga ko séddalee lan ngañ ci mën a indil. téere bi booy seet en réalité mu ngi tudd le procès de la dictée procès mu ngi mel ni genre rek diw ak diw diw daal ñu ngi werante ba war dem ci devant le juge loolu mooy un peu le sens du titre du livre il est donc polémique c'est-à-dire livre yi werante la loolu dafa am sens trop pour en enseignant euh, xam nga benn waaye benn benn borom xam dafa ne l'ignorant il affirme l'ignorant affirme il dit le savant doute savant loo ko wax mu ne ah pourquoi pourquoi pas moom noonu lay réfléchir le sage il réfléchit donc à partir de ce moment kii mu ngi affirmer kii mu ngi douter kii mu ngi réfléchir donc solution taxawagul mm-hmm. alors moom ma bëggoon nag ñu taxaw ci solution bu ñu taxaw ut solution mbaa boog ban voie la ñuy jaar ba am ay bribes de solution mm-hmm. su boobaa nag gis nga bu ñu nee dicté baaxul nangam si dugg na fi génn fi dañu war a dajale li dàq di te yëpp ñu jëm ko dajale muy d'une part d'autre part ñi bëgg dicté dellu si yëpp ñu dajale seen xalaat confronté ñaari xalaat yooyu xaj na dinañ seet fan la mbir mi war a jàng. kon dafa mel ni livre bi genre tribinal la boo xam ne dafa taxaw ngir mën a maanaam taxaw ci dicté eh, eh, layal ko daal. waaw du da layoo la sax. tribunal dicté la waaw waaw tribunal dicté la. macha allah mais xoolal tribunal dicté la ah Cheikhouna. parce que am na fu may wax ci biir livre bi bi may décrypter hmm, maa ngi naan livre bi dafa am ñiy accusé kii dicté nii la mel dicté na la la mel dicté baaxul dicté ceci dicté cela am na ñu naan pourtant dicté de baax na ndaxam lii am nañ ko ndax ci dicté lañ koy jëlee te muy lu baax lii aussi lu baax la te dicté lañ koy jëlee. xam nga kii accusé na kii défendre na am na nag àttekat bi war a déglu ñëpp joxe verdict am verdict ba nag mu ne ca àgg léegi foog ci ci fin livre ba lay feeñee waaw mais jàppal ne daal genre tribunal la c'est bien rendu waaw alors donc buñ dellu seeni waaw te yow looy reproché dicté ñu ne dicté daal du dara lu dul jaxase ay xel rek da ngay ut say mots yu bëri rangale leen même bu fekkee ne am na sax règle d'écriture te forcément am na règle d'écriture c'est tellement compliqué que doo ci mun a génn doo ci gaaw a génn daal loolu benn la ñu ne chicane la rek xam nga chicane booy seetlu mooy ci tali bi da ngay daw daw daw daw ba ci yàgg nga gis ñu ñu baare tali bi dafa doo daan mbaa leneen nag leneen loo xam ne day tax nga ralentir loolu la mooy chicane ñu ne dictée aussi chicane la chicane ay chicane la dinaa la dinaa la kii. loolu mooy première rapproche bi ñu def dictée mooy dictée moom chicane la. chicane la sonal nit ñi la rek. bu dama exemple bi ma la ciy jox mooy buñ la nee on est en français ah. les noms masculins certains noms masculins se terminent par er en er par exemple le coucher le quartier. waaye dañ la naan la kafe bokkatuñ liñ lay dindi ñu ne la exiger verbe exiger ñu ne la excité exiger ak exciter euh, xaw nañu niroo de waaye du benn te boo leen confronter rek def lu dul noonu hmm? exhorter boobu aussi am na benn élément bu ñëw bu ci bokk te xam ne loo fi ut H bi EX H. mënoon na fee ñàkk ah bon nga daal fi ñu ne la la cavité la lucidité la lucidité mais la randonnée mu soppeekuwaat loolu ay xeet la nga daal dem ca kanam ñu ne la la joie yaa ngi dégg la proie la croix yëpp waa la terminé te niroo wuñ ni mu jeexee la joie e la jeexee la proie e la jeexee la croix x la jeexee la cour croix ak courroie benn la croix x la jeexee la courroie e la jeexee le foie e la jeexe kii lan la le choix x la jeexee le doigt le poids donc loolu mooy chicane yi loolu mooy chicane yi na ñàkk ah? nga daal dellu ñu ne la yeneen moo u laa huu laa lañ wax de huu e le huu x à la fin ah amul dara loolu buñ ko defee au pluriel waaw nga ñëw fii ci le mot sensé sensé par exemple sensé lu am lu jaar yoon li ngay wax ni c'est sensé mun nañ koo dégg waaw mbaa boog ñu ne la tu es censé représenter mooy dafa mel ni yow yaa fi taxawal nangam ji xam nga muy ñaari moom yoo xam ne niroo nañ trop waaye bokkul nañ li ñu leen di bundee loolu nag dafay booleen boo ko boolee nag daf lay indil benn jafe-jafe boo xam ne ci xale buy jàng làng c'est pas possible beneen exemple bi ma mën a citer sax mooy dama lay tegleel dama lay tegleel ay mots pratiquement benn mot bi ngay dégg. waaye duñ ko bind de la même manière cinq capucins saints de corps et d'esprit portaient à leur sein le sein du Saint-Père gis nga ni mu tegloo saint saint saint saint te ni roobu niñ leen di bindee mm-hmm. loolu boo ci dugalee xale yi <laughs> wax dëgg yàlla fuñ daanoo yaa leen daaneel ah, donc loolu mooy premier reproche bu ñu def dictée ay chicanes la. kon su ma ko doon tënk mooy première jafe-jafe bi nga xam ne dictée am na ko muy jafe-jafe bi nga xam ne am na ci làkku français ci identifier entre masculin féminin ak euh, terminaison yi nga xam ne moom mooy am ci ci euh, ci biir euh, lettre bi ba noppi nga ci moyen xale bi di ko may not boo xamante ni du dëppook notam donc loolu moo tax ñu ni maanaam nañu teg dictée na rek ngir bañ a maanaam dugal xale ci ay jafe yu bari kon premier point bi dafa mel loolu lañ mën a tënk. premier point mu ne la dictée je vous le dis en français est l'univers morbide de la faute xam nga buñ ne faute on se situe plutôt sur le sur le terrain du droit ou de la morale droit bu ñu ne faute nga mooy def nga tooñ tooñ nga tooñ nga diw loolu moo fay faute bu dee ci morale lii tax ñun ñu mën a ànd mën a juboo di deflante lu rafet jéggi nga ko loolu mooy faute ci moral mais fii nag nekkuñ ci droit nekkuñ ci moral mais xale bi da nga koy juger foot morale par exemple jàngal nga ko benn régle mu ñëw il fausse la règle parce que y a un ou deux exceptions une ou des exceptions qui qui sont devant lui mu def faute léegi nag boo koy jugé au plan moral nga koy jugé et ça ce n'est pas juste kii faute matériel la def donc waroo koy jugé moralement naan ko xamoo dara da nga def nii da nga def na nangam nangam bon loolu aussi ci lu ñuy reproché dict bi la on est sur un terrain matériel mais on on on on, on accuse l'enfant de faute morale. ni ni ñuy àttee xale bi tamit jafe-jafe la mooy mooy ñaareelu tomb bi. looloo tax nag. ñu koy dóor ay punition dóor di dóor comme ça châtiment corporel mbaa ñu jox ko aca recopitel moo cent fois deux cent fois et cetera et cetera ça aussi c'est injuste parce que xaale bi li tax mu def faute bi xale bi li tax mu def faute bi moom xamu ko yow yaa ko ko war a expliquer yow jàngalekat bi je veux dire mais bu fekkee ne au lieu kon nga expliquer ko da koy dóor ne appliquer woo règle bi dina appliquer nag benn bés da nga am foo xam ne dina appliquer règle bi te yow doo comprendre ne dafa appliquer règle bu boobaa aussi da nga koy dóor su ko defee mu ne kii daal sama diggante moom day yàqu raw parce que il comprend pas ce que je fais et moi aussi je comprends pas ce qu'il veut dégg nga loolu ba beneen reproche la ko. mooy jafe-jafe bi am ci entre professeurs yi ak élèves yi ci ni leen di corriger ni leen di orienter loolu it euh, dicté da koo wane beneen jafe-jafe euh, inspecteur. waaw approche pédagogique bi c'est pas bien pensé parce que bu fekkee ne yaa ngi def une activité comme ça à la fin de l'activité l'élève a droit à des points chaque fois qu'il trouve war na am point mais fii chaque fois qu'il ne trouve pas da ngay nangu point <laughs> loolu. inverse bi lañuy def. xale bi fu mu defee vote rek dégg nga moom dañ koy punir ne et ça ce n'est pas juste man gis naa exemple bi ma jël fii dictée bi ma jox xale yi cent trente cinq mots la am vingt cinq am plus de vingt fautes am zéro sur trois cent trente cinq ah élève bi defee vingt cinq fautes am zéro ñaata moo la trouvé. il de cent dix mots. il trouve cent dix mots et il a zéro ça ne me paraît pas juste. ah c'est injuste. ça pas juste donc loolu suñ ko mënee rectifier dina tax xëy na élèves yi nangoo jàng dictée. ba tey ñi ngi ci ñi nga xam ne ñoo naan dictée dañ ko war maam ñiy layal dictée nii maanaam dictée xëy na dafa am jafe-jafe seen i argument loolu ci la bokk. bi. approche conflictuelle oui parce que bu ñu nee dictée rek élèves yi commencé trembler. sur le plan psychologique. oui oui sur le plan psychologique. ils pas la dictée ils ont peur de la dictée. et le maître là apparemment dafa mel ni moom tiital xale yi xoqatal leen teg leen lu métti daf ko neex donc foofu conflit bi day taxaw dès le départ am na ay élèves yoo xam ne par exemple cm dañ bàyyi njàng ndax dicté ak calcul oui dict bi dafa métti ci ñoom calcul mental bi métti ci ñoom ñu xëy rek daal di. ñu abandonné. abandonné am na aussi ay magum jëm yoo xam ne ñu ngi def ay concours mais dañuy laajte ndax concours bi am na dictée bu ne am na dictée ñu ne kon du def gis loolu yëpp lu ñuy lu ñuy lu ñuy ay jafe-jafe la waaw ba pare nag yow da ngay jàppandi rek ne eh, eh, il faut chercher un coupable dans la dictée. il faut qu'il y ait coupable loolu aussi xam nga du approche bu baax maa ngi def li waaye nag damay ut ku ma punir loolu loolu c'est pas très. mooy ñi koy dafa mel ni point faible yi rek la ñuy wër. waaw point faible yi rek la wër rek kese bo nga daal di dellu si daal ne obstacle épistémologique yi obstacle obstacle mooy lu mooy lu lay baare épistémologique mooy ngi xam-xam di duggee ci bopp je te cite un exemple. dañuy jàng ñun ñëpp à lekkool le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ñun ñëpp loolu lañ jàng mais en réalité le soleil n'a pas à se lever à l'est ou à se coucher à l'ouest c'est la terre qui tourne et qui tourne autour du soleil mais loolu xaj na par paresse intellectuelle ñu ne rek jàngte bi fii lay fenke muy dëgg itam fële lay sooy muy dëgg mais boo ko rendre en français tout devient faux parce que le soleil ne dort pas donc n'a pas à se lever ou à se coucher bon loolu tax na ba approche euh, euh, obstacle épistémologique yooyu bu ñu jëlee en français xale yi da leen di dicter nga ne leen moi j'ai les poche vide les poches mes poches sont vides bu ñuy bind vide d'accord nañ ne adjectif qualificatif la. mu ngi war a ànd ak poche war ànd ak moom ay melokaan féminin pluriel mais ñoom nangu nañ féminin bi mais duñ nangu pluriel bi parce que vide mooy lu dara newul te loolu nga leen jàngal c'est le singulier yaa leen ko jàngal appliquer nañ la ko nga ëlbatiku di leen punir par contre boo dellu seen les poches sont pleines ñu ne ah kon daraa ngi fi waaw la poche est pleine la poche et pleine ñu kon dara nga fa dañuy def es <laughs> gis nga affaire yooyu da nga expliquer da nga expliquer bay bëgg a dee mais du mën a dugg ci élève bi boo toogul ak moom def ay exercice lu ñuy wax ay exercices structuraux mu jis chaque fois affaire bi ni muy varié wu chaque fois ni muy varié wu tant que defoo loolu rek tu trouveras toujours des fautes dans ce machin là voilà quelques exemples yi ñu mën a reprocher dictée donc muy ay tomb yu am solo euh, ñu nekk ci benn procès bu am solo muy procès de la dictée euh, jafe-jafe yi nga xam ne dictée am na ko ñi nga xam ne ñoo koy layal naan dictée nekk na matière boo xam ne dañ ko war a dindi ndax jafe-jafe am na ko tënk nañ ko ci jafe-jafe nga xam ne dafay dafay dëppoo ci wàllu langue bi comme mën a identifier entre masculin féminin tënk nañ ko tamit ci ni nga xamante ni tamit moom la ñuy maanaam orienté xale yi dinañ ci may ay notes euh, aussi tamit euh, nekk na matière boo xamante ni parents yi mën naa jaxal psychologie xale bi di tax muy tiit wala muy abandonné loolu lépp nekk ci jafe-jafe yi nga xam ni am na ci dictée ba tax yenn borom xam-xam yi ni comme que jafe yëpp mi ngi ci nañ ko supprimer mais du yem foofu am na ci ñi ñoo xamante ni tey taxaw nañ layel dicté ñu déglu avocat dicté yi lan lañ wax. avocat défenseur yi. waaw des défenseurs nee nañ. nee nañ apprentissage ak mémorisation des règles d'orthographe c'est utile yow jàng alxuraan ñii jàng nañ alxuraan xam nañ ne mémoire dara mënu ko remplacer. te loo dënk sa mémoire bu dee dëgg dëgg dëgg loo dënk sa mémoire rek mu nga fa waaw donc ne serait-ce que de ce point de vue nañ garder dictée parce que dina la ràngal dina la jàngal ay règles de grammaire gis nga kii le bled mooy grammaire bu CM2 ba ba classe de troisième bled daf ko limité à 160 règles 160 règles de grammaire boo ko xamee rek day baax mm-hmm. waaw di ko xam nag bu baax a baax te du la traité de faute. mais xam ko dafa am utilité loolu mooy première première argument bi deuxième argument la dicté est un instrument de conquête de statut social euh, loolu exemple bu sori laa lay jox benn buur bu jigéen jabari Napoléon la woon Napoléon III euh, ñoom dañ doon am gan ñuy ñëw di leen waxtaan sal naan si ataaya daal comme alors bu ñëwee nag mu di leen di tooñ naan waaw yéen lii nuñ koy bind lii naka lañ koy bind et cetera bu affaire bi dem bi xumb ndaw si woo borom benn borom xam-xam bu ñuy wax mbir mi ne ko dama bëgg nga defal ma benn texte boo xam ne dama koy dicté sama gaañi mm-hmm. waa ji daal dem borom xam-xam la def benn dicté bu garaaw bu garaaw a garaaw bi ñëwee <laughs> buñ ko dicté exemple semble que ndaw si ji boppam def na plus de soixante foot mm-hmm. jëkkër ji di Napoléon borom réew mi Napoléon Bonaparte ñëpp xam nañ ko <laughs> dafa na près de quatre-vingt-dix foot xaw ma soixante-quinze foot bon donc ñu ne nag langue bi français bi balaa nga koo gën a mën nga war a mën a bind nga war bind mooy comme il faut parce que ki kii ko sos académie française kii ko sos muy Richelieu dafa ne woon français il faut ñu jàngale ko di ko bind de la même manière pour tout le monde parce que loolooy tax nit ñi am conscience que ñoom ñoo bokk lii ñoo bokk France moo tax ñuy làkk français di ko bind de la même manière waaw ñu ne nag donc na ñëpp jàng dictée ci lañ ko dugalee ci école waaw te dictée ci boppam école de rigueur la école de la parce que buñ ne dictée ñu ne les enfants sont partis mooy phrase bi xale bi war na d'abord dugal ci bopp bi les enfants sont partis il doit l'imaginer les enfants sont partis il faut mu imaginer ko ba pare soog koo mën a bind te boobu imagination bi nag du lu la neex parce que am na ay règles d'écriture enfant ak les ñoo ànd sont partis sont ak partis ñoo ànd donc faut qu'il soit capable de faire la segmentation donc loolu rigueur la boo ci defal rigueur di nga daan par exemple les enfants nga bañ a def son ndax daal def on on partie ngay def te boo defee on partie de toute façon kenn di wax on partie mais boo defee on partie boo fa defee es muy beneen faute encore parce que verbe avoir ak auxiliaire l'auxiliaire ne de pas le verbe ne de pas yooyu yëpp aussi bokk ci rigueur yi nga xam ni da nga a tënku ci grammaire bi war a tënku ci imagination bi war a tënku ci mbir yu bari kon dafa mel ni daal dictée dafa moom moom moo ëmb mooy nday mooy nday langue ci ci ci ma dégg ni ma déggee. waaw ah, parce que école de concentration la boo concentré wul yooyu yëpp mënoo ko indi waaw parce que boo demee ba ci yàgg boo xale yi da leen di dicté ah un texte par exemple de sept lignes sur les cinq lignes ils peuvent très bien se comporter. mais sur les deux dernières lignes ñu jóoral la fa faute yi parce que sonn nañ. xel maa ngi commencé sonn. <laughs> Ah. te dictée aussi école de culture générale la exemple bi ma lay jox chaque année au mois de mai je crois il y une dictée internationale organisée par l' académie Goncourt sous l'égide de sous l'égide de l' académie Goncourt mais ki ko jiite mooy Bernard Pivot. Bernard Pivot day woow ku bëgg rek bokk yow boo amee niveau kii am niveau kii am niveau ngeen bokk ci dikk bi mais nag la dictée spécificité mooy affaire français rek lay wax par exemple ti di la gastronomie en en en en en chose xaw ma naka la ko dans l'estomac la gastronomie dans l'estomac c'est-à-dire façon yi lekk ci biir dina fa tudd ay lekk yoo xam ne tubaab yi loolu la ñuy lekk mais yow xamoo ko donc bu ñu la ko dicté doo ko xam ça vous oblige donc la dictée à à vous cultiver à vous intéresser à la culture de l'autre recherche yi a xam li la wax lu muy tekkee voilà foog nga jéem a xam lan mooy français loolu itam nag booy seetlu ca gannaaw ci loolu mbaa li ko lu soubassement mooy dañuy jaay seen langue donc géopolitique bi mooy loolu il faut que la langue soit parlée il y a en 2021 ou 2022 ñu ngi estimé woon le nombre de personnes qui parlent français à 300 millions dans le monde entier te ñoom chaque année dañuy yokk ça ça croît de comme combien de pour cent par année hein? 8 pour cent quelque chose comme ça. donc kon yooyu yëpp ci point fort lecture la bokk yeneen i point fort inspecteur. bëri na bëri na wax dëgg yàlla ba ñu jël ba mu njëb rek euh, avant dernier bi dañu la dicté un exercice de mobilisation et d' intégration mobilisation mooy. nga jël fii jël fii jël fii yu ànd nag dajale defar toggaat fédéré te l'approche par les compétences loolu la dañ leen mobiliser et intégrer donc loolu dicté daf koy daf koy daf koy dëgëral daf koy saxal daf koy gën a saxal waaw waaw inspecteur du ma la bàyyi nga lim yëpp li ci des moom damay bàyyi ñi nga xamante si tey ñoom ñooy euh, euh, maanaam bëgg gëstu ci wàllu dictée ñoom ñu mën a jënd livre bi su ko defee a ñu mën xam li nga xam ne moo ci nekk ci biir inspecteur gannaaw bi ñu déggee ñi euh, ñi nga xamante si tey ñoom ñooy taxaw maanaam ma dugg ci domaine technique yi ndax dama bëgg nit ñi jënd livre bi ko ñu lire ko ba mën a xam li nekk ci biir ndax lépp buñ ko <laughs> yemalee ci émission bi xëy nit ñi mën nañoo doyloo émission bi tey wax dëgg yàlla muy livre bu am solo boo xam ni ñoo ngi sàkku képp koo xamante ni xam-xam yi teel na la nga dem nga dem nga mën koo liir euh, inspecteur euh, maanaam euh, fi ngay tënk sa cadre rek solution bi du ma du du ma du la ko joxloo ci plateau bi dama bëgg nit ñi dem xool maanaam avocat bi lan la jox ci àtte bi nga xamante ni tey moom moo am ci dictée mais kon sa kàddu gi nga xamante ni moom nga tëje ci livre bi ak conseil yi nga xam ne xëy na yaa ngi ko jox nit ñi li ci des nag képp koo xam ne tey bëgg nga ko maa ngi lay sàkku nga delluwaat ci livre bi incha allah xam naa du ñàkk mu joxe ay numéro yoo xamante ni képp ko bëgg livre bi incha allah ca di nga ci a jot bu soobee yàlla inspecteur waaw solution sax mun na bañ a ñàkk parce que peut-être awma solution man dama laaj ay nit ñu mel ni ñii yow lan mooy sa xalaat ci dictée est-ce que dictée nii la mel est-ce que lii ñoom ñoo tontu seen tontu laa dajale tënk teg ñële nga xam ne dañ bëgg dictée ma dajale seen tontu daal di tënk teg après nag ku nekk yaa ngi sa xeli bopp mais li ci li li li am solo que je peux dire et mooy que ñu bëri ñu bëri sur soixante-dix personnes soixante-dix-sept personnes yoo interrogé soixante-dix-sept personnes yoo interrogé parce que cent la woon la cible était de cent soixante-dix-sept réponses me sont parvenues te soixante-dix-sept réponses yooyu quatre-vingt pour cent yi ñëpp dañ ànd ci que l'addicté revienne waaw naa nag conditions yi muy dellu si ak yooyu ca la boroom xam-xam yi ku ko bëgg na ñëwaat ci livre bi incha allah <laughs> su ko defee mu mën ci xam tey ku soxla livre bi fan la ko mën a amee ku soxla livre bi day bon boo demee laa bu sol laa bu sol le numéro c'est le 77 460 95 95 képp ko woote ci numéro bi incha allah mën nga am ci livre bi bu soobee yàlla. foofu daal ku fa woote di nga jot secrétaire bi mu jox la information yi. merce inspecteur ñu ngi lay euh, euh, sant bu baax a baax ci réponse yu am solo yi ak ci gëstu bi nga xamante ni tey gëstu bu am solo la ndax euh, livre bu la boo xamante ni tey ñim ci constaté mat na lu mat 77 personnes mu ngi doon wax naan 100 la mais bu ko wàccee ba 77 day doon chiffre bu am solo ndax ñëpp xam nañ chiffre 7 li nga xamante ni tey moom la représenté ci l'islam loolu day wane barke bi nga xamante ni suñ borom suñ borom def na ko def na ko ci livre bi donc loolu lépp li muy firnde rek borom moo ni wala si na jaaxadu fii na la nahdiyannahum subula na kon tey fii ci jaxaaw siin ci procès bi nga xamante ni moo nekkoon ci entre ñi nga xam ne ñoo ni na dicté am ak ñi nga xam ni ñi ni nañuy dindi dicté ku ci nekk am nga sa lay ku bëgg xam lay boobu ñoo ngi lay sàkku nga delluwaat ci livre bi ak avocat bi ban décision la jël ñi nga xamante si tey gannaaw bi mu dégloo ñaari boor yëpp kon mbokk yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mu guddal fanu euh, inspecteur di ko ñaan suñu borom mu kàttanal ko mais aussi di jox benn message bu am solo ci kilifa yi nga xam ne tey ñoo ñuy déglu mooy ñu mel nii dañu war a bokk ci këru système bi nga xamante tey moom mooy développer Sénégal ndax bu ñu àggee ci dëkk yu mel ne ay Japon ñoom képp koo xam ni danga nekk boroom xam-xam même boo retraité dañ leen dajale ci benn système boo xamante ni chaque année li leen soxla moo ñu defa ñu benn innovation yes we can do it mën na nekk ndax subhanahu wa taala may ñu lépp waaye nag lim ñu may mënuñu koo jëriñoo lu dul ku nekk ci ñun da ngaa indi sa doole indil sa force ma indi sama force ñu def li naan team together everyone achieve more assalamu alaikum wa rahmatullah